lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngërëmam yooneen sa soppe auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri li amri wahlul uqdatan min lisaani xaqu qawli wa salaatu wa salaamu ala wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala yi ñu bokkal buur bi wa taala nu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmmi yàlla ak barkeem yërmandeem ak xéwalam suturaam yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot ñoo leen di nuyu di leen ziyaara ngeen di abdu ngeen di ànd ak Abdoulaye Ndiaye fii ci Mouslih TV émission bi may amal di leen ko defal mardi jot ci waxtu wi mooy li fi réew mi ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara di nuyu sama man bi sama kanam Ablaye naa ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax noo ngi jaajëfal mbokk yi tabaarakallaahu ci émission yi weesu noo ngi woo di ko rafetlu waaye nag ay kàddu ñaax dong la tabaarakallaahu tey nag macha allah li ci réew mi rek ñu jël ab jàngoro joo xam ne mu ngi ci réew mi rek bëgg ko waxtaanee ak yéen ndaxit tey noo ngi bëgg a dikk ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy làmmiñ waaye rawatina nag mooy ñàkk sàmm bi ñuy ñàkk sàmm suñu làmmiñ ci deru gor ñi ci deru jullit ñi. ndax mbokk yi dañoo war a xam ne làmmiñ lu rëy la te làmmiñ lu danger la tabaarakallaahu ndax kat yeneen bi sallallahu alayhi wa wax ne ni moom jaam bi de saa yu bu xëyee bis bu yàlla sàkk cër yépp dañuy wax ak làmmiñ bi naan ko yow làmmiñ ragalal yàlla ci ñun boo jubee ñu jub boo dëngee ñu dëng moom làmmiñ mbokk yi tey dëkk ak dëkk buñ dee xeex geer jóg wallaahi ci làmmiñ gii la jóge tey fu ngeen dégg rek jàmm ñàkk fa rek bàyyiwul fenn lu dul ci làmmiñ bi waaye nag ni ki noonu bu ay nit nekkee ci lu baax wala lu yàqu ñi di ko defar tabaarakallaahu yàlla nga ko jaarale ci sunu làmmiñ yi kon mbokk yi ñu xam ne ne làmmiñ li muy lor ci nun bari na ndax noo ngi ciy bàyyi xel ndax noo ngi ciy bàyyi xel yor sa làmmiñ ñàkk ko sàmm ci fa tabaarakallaahu der jullit moo tax sëñ ba dañ góor gu baax waxoon ni ëllëg yow man xiyaam ku dinañ gis nit koo xam ne ci àddina danañ ko mbonteem foo ko nattoon weesu na ko ëllëg yow man xiyaam mu dugg aljana mu yëm nit ñi parce ñun sunu problème mooy dañuy baakaaru ci baakaaru nit ki nit ki moo bon boo yegg ci mbonteem tabaarakallah wolof nee na yedd yërëma ko gën waaye dañuy jël sunu làmmiñ teg ko ci nga xam ne ni moom mooy deru kooku di def na naka sulu noonu mbokk yi fan la fan la ñu wax rek wala fan la yàlla wax ni rek nit war naa mën a yegg ci mbonte wala bon ba yegg ci mbonte ñu jàpp ni yow war ngaa mën a jël sa sa sa sa làmmiñ di ko teg ci dara fu ñu ko waxee ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nanu ko nee na min xusnil islaamil mar'i tarkuhu maa laa ni bokk na ci liy rafetal islaamu nit ki lu sa yoon newul bul ci dugg ndax boo bari na tey li ñuy dugal ci naka sulu noonu jël suñu làmmiñ di ko teg ci deru gor ñi dara yóbbewu ko lu ñaaw njort ak lu njut ñaaw njort rek ak lu njut yépp lu ñu dugg moo ñu ci dugal ñaaw njort ak lu njut wallaahi yow mi jóg bay lijjanti problème mu jàmbur di lijjanti ayu jàmbur di lijjanti sikku jàmbur wallaahi bàyyi nga lu ko gën a rëy sa biir kër te rek la woo ko kon nañu maandu ci diggante nit ñi ak seen borom moo tax yeneent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne bu ma kenn nettalil benn sikk ci samay saxaaba ndax bëgg naa fa tabaarakallah bu ma leen xoolee fekk man am naa xol bu set wécc ci ñoom ndax nit nag. bu meloo benn melokaan gi nga ñëw wax ko nit ki wax ko kee wax kële yaa ngi jël ay gàkk-gàkk di ko def ci xelu nit ñi ñu di ko xoolee kooku mbokk yi moo tax dañuy wax ne àddina li ci gën a rëy li ci gën a li maanaam yàlla nañ ci yàlla muccal yàqkatu der bu am crédit ak paas ma ne leen na nu yàlla muccal ci yàqkatu crédit maanaam yàqkatu euh, der bu am crédit ak paas ndax lan. liggéeyam gi muy dugg ci téléphone am di woo ay nit di yàq sa der ñam yu woo mënoo ci woo ku ci ñam yu woo mënoo tourné waat di woo ku ci nekk ka mu woo ne la setal sa bopp wallahi da ngay gis nit koo xam ne suba ba ngoon jot bu duggee téléphone am wala dugg liggéeyam dara intéressé ko dul yàq der dara intéressé ko dul wax ju ñaaw dara intéressé ko dul nekk ci naka sulul noonu rek. mbokk yi nañ ragal yàlla te ñu xam ne ni kat na la leer ni saa yi boo jàkkaarlu nit ki wala nga wax nit ki ci ginnaawam di ko jëw di ko jëw keroog jamono ba mu jëw yàllaa ngi jël ay baakaaram di la ko di la ko jox di jël di jël say tiyaabu di ko ko jox moom maña la jant boo toogee di jëw nit ki wala di yàq deram di wax ci deram ci naka sudul noonu ca jamono ba nga koy wax yow mi yàq deru kooku yëgal ni ñoo ngi jël say tiyaaba di ko ko jox waaye di jël ay baakaaram di la ko sëpp moo tax góor gi doon wax naan ëllëg yowmal qiyaam dina am ñoo xam ne dañuy sàggan ci àdduna ñu dugg dugg àjjana mu bett ñu bari ndax lan waaw topp deru nit ki di wax rek ëllëg yowmal qiyaam nag nga taxaw yàlla wala rek la seen diggante ne diw yaa ko jëwoon ñu jël say julli jox ko àq ya jeexut ñu nekk ca ñu jël sa sa sa azaka jox ko jël sa weeru koor jox ko jël sa aju màq jox ko ba mënutoo koo fay sax ñu tourné jàll jël jël ay baakaaram di la ko sëf lu ko fi jar ndax nit ndax nit yow ndax da ngay jaamu yàlla di jaamu yàlla nit ki ndax da ngay jaamu yàlla di jaamu yàlla nit ki yàlla nit ki nag mooy ngay jaamu yàlla ba pare di ko verse ci compte jàmbur yëgal ni saa yi boo toogee di yàq deru nit ki di wax ci ci ginnaaw naka sul noonu di ko jëw yëgal ni yaa ngi jël sa yit yaa di ko verse ci compte kon mbokk yi nanu bàyyi loolu xel nanu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax te ñu xam ne nañu bàyyi yàqante dara te wallaahi bari na na ku ñu yàq deram mën na la wallaahi bari na tey ku ñu yàq deram wala nit def baakaar li may wax rek ne ñun li ñu gën a intéressé mooy di baakaaru ci baakaaru nit ki nit def baakaar wallaahi te jamono ba mu koy def rëccu na ko de amaana mu jug xaaju guddi julli ñaari rakk jël ay loxoom tàllal ko boromam yàlla jéggal ko mu jaral ko ba muy jooy ci baakaar googu fekk yàlla jéggal na ko baakaaram yi bu bu yàgg ah ndeysaan ñun ñun ñu topp ci rek di baakaaru ci baakaaru jàmbur googu di baakaaru ci baakaaru jàmbur googu mbokk yi nanu ragal yàlla nanu ragal yàlla te bañ di juger nit ñi waaye bàyyi nit ñi fa tabaarakallaahu seen diggante ak seen borom. te nag waxoon naa ko ci commencement bi sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na min xusnil islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani bokk na ci li rafetal islaamu nit ki lu sa yoonewul bul ci dugg dangay yor sa taab di di jënd picc jàmbur ngir yàlla yemal ci yemal ci sa loolu gis ku yor ngandam taab di li jënd picc jàmbur kon mbokk yi nañu fexe defaat suñu jikko waaye nag nañu fexe di wattu suñu làmmiñ nañu fexe di wattu suñu làmmiñ ci li nga xamante ne moom mooy goru yàlla yi dañu fexe di wat suñu làmmiñ fa tabaarakallaahu ci jaamu yàlla yi te di bañ di juger nit ñi bàyyi nit ñi ak seen borom fa tabaarakallaahu ndax yàlla kat borom yërmande la waaye nag li ñu fi nekkee mooy jàpp nit ñi di laq di teg rek ñun de moom àjjana moom mu ñu safara waaye nag fa tabaarakallaahu nañuy maanu ci diggante nit ñi ndax nag wax dëgg yàlla nit ki la muy def moom diggante moom boromam la. te sax nag boo dee nit da ko war a ñaanal ci loolu mu ne mu jóge ca kon mbokk yi fa tabaarakallaahu lu ñuy amoon ci waxtu jeex na euh, lii lañ leen andiloon fa tabaarakallaahu te nag dafa bokk ci li nga xam ne ci biir réew mi la nekk moo tax ñu indi leen ko seen émission li fi réew mi indi leen ko nag mu doon ci biir réew muy ay jàngoro yoo xam ne ni nañu fexe mu denc ñun mooy yàqante dar gi mooy jëwante gi mooy naka su dul noonu jël sa làmmiñ rek teg ko ci goro yàlla yi topp yàlla gën a yo topp yàlla gën a jafe yàlla na ko yàlla yombalal mooy yàllaa gën a yomb yàlla na ko yàlla jafeñal boo koy lépp lu ci jub ci yàlla la lu ci dëngu ci ñun la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko. li jooy jooy jóg leen dalal ko lislaam a suux suux jóg leen suuxat ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yonen sa soppe